Théodore va mal bu 8 heures jotee incha allah ñu dellu si waat à tout à l'heure. ama ci Abdoulaye Wade la woon. léegi euh, luy yitte jamono ji ci seen mouvement beeg dëkk ba. Euh, dëkk bi xanaa xaw a jaaxle tuuti rek Babacar. donc nga may ma ma sant rafetlu aussi seen liggéey di nuyu sénégal yëpp di ñu seetaan di ñu déglu ci Sénégal ak ci bitim réew. Euh, jam soo ma mayee sax peut-être balaa muy tàmbale ma masawu tuuti suñu mbokk waa Podor yi dëkk dans la ville de Podor jànkoonte leeg jafe-jafe ndox depuis presque des semaines. il semblerait que équipe équipe bu SONES yi ñëw nañ fa commencé mais comme problème mu defaraat beneen usine la te dañoo jëm ci ay événement religieux le 18 mai muy gàmmu Mbodiène war a drainer des milliers de pèlerins ñu doon ñaan vraiment de de de fidèles que le ministre de l'hydraulique bàyyi ci xel vraiment ñu ñoŋal liggéey bi ndax ñu mun ñu régler problème boobu parce que ay calcul 44 kilo 44 degré moom euh, daa yéeme soo ci boole ñàkk ndox. waaw comme li nga wax Babacar rek donc euh, am njaaxle tuuti rek ci ci ci ci dëkk ba ci li jëm ci wàllu baykat yi ñun jàpp nañ ni pratiquement Podor comme mu ngi sosoo ci vallée de la vallée du fleuve Sénégal euh, que suñu mbokk paysans yi producteurs yi am jafe-jafe lool am jafe-jafe sax pour dem campagne pour ay problème yu bëre bëri bëri bëri yoo xam ne vraiment jox nañu attirer ci attention gouvernants yi attirer ci attention autorités surtout ñu bees ñi au moins ñu mën a lig ñoŋal liggéey bi ci loolu parce que gis nañu vraiment ci nji nji ci régime bi génn mën nañu jàpp ni quand même vraiment échec la sur le plan agricole euh, ay béykat yoo xam ne mënuñu dem campagne euh, fi may wax ak yow mënuñu dem campagne parce que euh, tenaillé par des problèmes de financement tenaillé par des problèmes de réaménagement tenaillé par de problèmes de problème d'eau problème d'électricité vraiment métti na daal jaaxle jaaxle daal bu bu rëy la baykat yi am moo gën a vraiment sabab ñu ñëw fii toog waxtaan ak yéen ci loolu mais <clears throat> naka loolu mën a demee parce que si on s'appelle bien euh, tournée économique économique am bi mu amaloon dans le nord du euh, du pays Macky Sall am na lu bëri la nga xamante ne wax na ko fa am yenn jumtukaay yi nga xamante ni itam visité na ko ni ki ay casier euh, yàggul ñu ngi doon wax ay tracteurs yi nga xamante ne fa lañ koy yóbbu euh, luy problème bi kon. waaw problème comme li nga wax rek casier bi je me souviens casier wu Ndiaye Pendaw bi la visité woon bi muy ñëw rek balaa bu ñëw rafetal nañu casier bi rafetal tool bi ba mu ba mu rafet ba mu naat ñu ñëw ñu yóbbu ko fa mais en réalité problème yi moom c'est dans tout pratiquement du département de euh, dans la vallée du fleuve soo ko jëlee de Ngalenka nga dem casier wu Ndioum casier wu Diomandu casier wu Ayrelaw casier wu euh, Saldewala casier wu Pété partout c' est le même c' est le même cri donc li ñu doon xaar mooy soo jëlee par exemple régime Macky Sall 12 ans wu régime Macky Sall même pas benn hectare boo xam ne réaménagé nañu ko foofu sur presque la matériel agricole bu agricole bi ngay wax ko bi ko président génnee fële Grand Théâtre di ko di ko wane di jamono yi defe naa Aliou Nguy Ndiaye la su ma juumul mais malheureusement. mooy mooy machine yi tracteurs yi anañu euh, gisuñu ko toog la waxee ni tey jamono ji. suñu suñ la waxee tey suñu mbokk baykat yi tey pour ñu bay pour ñu pour ñu am souvent moissonneuse batteuse sax dañuy dem ba Rosso jéggi dex gi dem jéggi frontière dem lu fa machine pour mën a ñëw bay euh, euh, na tracteur yu ñu joxoon ay maire sax ñoom loolu ñu jox ko baykat yi ñu koy loué di seen poste donc mu noonu jafe-jafe jaay mm. gi ñoom malheureusement intermédiaires yi ci nekk c'est les producteurs de dimanche malheureusement ñoo yàq mbay mi et donc ñu ñaan autorité yi de dimanche nag du leen lu dul politiciens yi jël nguur Euh, jël alal ju leen lewul dem di jël suuf jënd machine di bay ci kaw nit ñi. loolu rek loolu mooy loolu mooy jafe-jafe bi. donc ci ci loolu rek peut dama ci dama ciy rebondir sax pour demander ñu comme ñu ngi tudd tudd audit. que vraiment que autorité mën a gëstu mën a bàyyi xel ci un peu sur la gestion de la SAED de 2012 à maintenant parce que Babacar dañ ciy dégg chaque fois dañuy dégg ay financement dañuy dégg ay programme ay JICA ay AFD ay vraiment financement c'est des milliards mais vraiment soo seetloo daal dañuy ragal ni pratiquement lépp ci ay cabinet de consultance donc laaj na daal ñun leen mbër ko xoolaat ko xool gestion SAED bi nu mu demee depuis 2012 parce que li ñu fay dugal ci souvent ci ay financement yi ñu dégg bëri na mais du yegg ci suñu suñu bokk baykat yi parce que baykat yoo xam ne tey pour nga mën a dem pour nga a dem campagne da ngay dem jaay sa sa sa cheptel bu ndaw jaay say say xar jaar say béy pour mën a dem fay banque bi te loolu aussi lu jar a xoolaat parce que mode de financement des des des parce que suñ la jo appliqué ay taux de 7 virgule 5 pour cent pour ay un pauvre baykat donc loolu aussi problème la banque boo xam ne day taxaw ne la tant que remboursé woo à 100 pour cent même su dee 4 millions 3 millions moo des tant que remboursé à 100 pour cent kenn du la financé loolu aussi ay jafe-jafe la yu gars yi war a xoolaat parce que su ñuy loolu lu jar a xoolaat la te war na mën a am parce ndox am na fa naaj am na fa. agriculture yu am ñun nag ñun nag Fouta jaaxal nañu de Podor jàpp Euh, suuf na fa gàññ dex gi jaar foofa te nit ñi mënuñoo bay normal. bi Sénégal dee Sénégal ba léegi. mënuñu malheureusement ah. malheureusement Babacar c'est manque de volonté la c'est que coow lay bëri souvent rek discours yee bëri rek mais en réalité li fa nekk tey tey béykat yi mu ceeb sax mënoo ko teg bët ceeb ceeb mënoo ko teg bët tey fi ñuy wax ne day suñu la joxee par exemple ñu ma jël exemple wu Salde walla cent 600 hectares 600 hectares plus de 100 100 pour 100 100 union lañ ci financé. benn VIE sur sur par exemple 600 hectares ñu ne la 22 hectares dong la ñu exploité xam nga loolu catastrophe la et loolu aussi su ngeen mën nañ ko mën nañ mën nañ suñu interpeller président de de l'union l'union des producteurs de de la de l'arrondissement de Saldé di monsieur Anne Ibrahima Anne suñ ko laajee dana ko confirmer soo demee dans la cuvette de Dioum ku woo par exemple le président de l'union laaj Magoum Ndiaye mu wax la ko c'est le même constat dans toute la pratiquement dans toute la vallée et donc vraiment on se pose la question li leen dal moo dal moo dal Sénégal gépp de hmm? euh, anam beeg euh, foo mën ci dem suuf am ndox jege te nit ñi mënuñoo normal ci bay état bi euh, di sóob rek du def dara vraiment vraiment loolu lu jar a xool la président Macky Sall ay la yowén pratiquement même soo koy xool ci yeneen domaines yi mais ci domaine bi kam nañ jàpp ni vraiment euh, échec la et vraiment la vallée les producteurs sont fatigués les paysans sont fatigués donc on a vu des initiatives qui sont annoncées par ci par là des coopératives agricoles et tout ça c' bien mais comme li nga wax rek cest à que c' pas des choses yoo xam ne bees na coopérative nekk ak ñoom dund ak ñoom ànd ak ñoom xool problème yi dugg dans l'île la Morphil dugg dans les zones comme ni nga wax Nalambe dugg dans la Casamance dugg dans la vallée du fleuve dugg fa yendoog ñoom fanaan ñoom xam lay jafe-jafe xam réalité yi bàyyi intermédiaire yi nekk ci diggante bi rek di leen jox de fausses informations wala ñuy toog mais est-ce que producteurs yooyu ci seen wàllu bopp itam amuñ ci part de responsabilité ñu gën a wu bu fekkee ne euh, kilifa yi jàppale wuñ leen ñoom bu ñu organisé woo euh, au lieu dem di luy ji ab ab ab tracteur fële ci Mauritanie pour euh, bay ñu organiser wu au moins wut seen i matériel bopp. non c'est-à-dire que amuñu mooy peu peu peu. Georges bu nja bu njaayee non c'est-à-dire soo xoolee soo xoolee à la différence par exemple soo jëlee la vallée bi nga jël zone nu bi zone nu bi. foofu mën nga rencontrer des agro business malheureusement loolu amul pratiquement dans le département de Podor et c'est l'occasion peut-être de de de de de ce que le président a dit lu mu initier peut-être tey avec le secteur privé pour que le secteur privé su ñu leen accompagner ñu mën a dem investir dans la dans investir ci mbay mi investir dans l'agriculture parce que loolu amu fa les gens qui n'ont amuñu moyens yooyu parce que c'est gént sax day mel ne rêve mais alors que loolu la ñuy dund ñooñu par exemple soo leen laajee ñu wutal seen bopp matériel agricole amuñu moyen pour mën a dem wutal seen bopp c' est l' est censé mettre à la disposition des producteurs matériel agricole boobu des moissonneuses batteuses et tout ça parce que ñëlee mën nañ ko am dans la zone du Walo yi tout ça mën nañ am des agro business nga xam ne yor nañ seen xaalis yor seen i milliards ñëw di investir foofu mais loolu amul mais c'est ça le malheur Georges. Mhm. li ñu bëgg xam mooy sax euh, yéen euh, seen tund yooyu lu ngeen di faral di gën a gën a bay. non foofu mën nañ bay lépp c'est-à-dire que ceeb mën ko bay tey suñu lay wax ni par exemple on importe plus de millions de tonnes de riz alors que fii ceeb ceeb bi mën nga ko bay fii c'est-à-dire que chance bi vallée bi am. c'est-à-dire que tu, tu, as, tu as les différents types de sols yu fa nekk dans la vallée yoo xam ne mën na jël lépp même le blé bi ñu dem di quémander un peu partout à l'Ukraine à à à Russie. tout ça blé ñu ngi koy essayer mais. mais le blé a été expérimenté dans la zone dans la vallée ça a été expérimenté et ça a réussi dañ ko fay bay. c'est-à-dire mooy li mu la cest dire que chance bi gars am foofu mooy que c'est les différents types de sol pratiquement toutes les cultures yoo mën a jël da nga ko a jël tu peux prendre pour donner un exemple non pas non jël pratiquement culture yoo soxla mais mm, waaw par exemple xam nga gars dañ koy bay <laughs> pour jaay ko cest pas pour euh, dans le sens euh, péjoratif quoi dans le sens négatif quoi c'est pour montrer que blé beeg loolu yëpp mën nga fa bay da nga bëgg wax ni suuf si nangu na fa nangu na très bien nangu na hmm. lu bëri am nga soble mu ngi fa te malheureusement xoolal li di dund hmm. avec la mévente le problème de commercialisation tey ne nga douze ans tu ne peux même pas laisser des chambres de des chambres pour conserver l'oignon foofu problème la pendant yaa ngi dem importer ji oignon alors que des tonnes et des tonnes de d'oignon mu ngi fii di yàqu demal dans la zone de Boubé Laay Wàdd ak Macky li ñu waroon def defuñ ko am ngeen yaakaar ci Diomaye ginnaaw moom sax. fa baykat la. mais justement ba mën nañu am yaakaar. ci pensez sensible à tout ça. absolument dès l'instant que comme li nga wax baykat la c'est un fils de paysan c'est un paysan qui connaît un peu les réalités jàpp nañu peut-être. ak initiative li ñu waxagum avec le le fait que ñu dajale waat le ministère de l'élevage le ministère de l'agriculture avec cette volonté on nous aurait ben on nous dit que tey dañ ko jox quelqu'un qui qui est du milieu qui connaît le milieu le ministre de l'agriculture mën nañ am yaakaar ni peut-être que mën na mën a mën a mën a changer mais il faut que mu am benn volonté ferme par rapport à ça tant la volonté ne n'y est pas rek duñ dem il faut ñu investir ces solution et c'est la seule alternative par rapport c'est-à-dire lépp lu ñu mën a def souvent c'est des c'est des euh, lu ñu mën a def waa subvention wala wàññi waat par exemple subventionné wala def leneen ak leneen c'est pas ça la solution la seule solution mooy nañu dundee li ñuy bay c'est-à-dire investir ci mbay mi investir ci agriculture bi développer ko moderniser ko xale yi mun a am liggéey ñu mën a dundee li ñuy bay ñu mën a dindi un peu cette affaire volonté boobu euh, ñoom euh, wax nañ euh, dañu bëgg a créer ay nu mu tuddati ay coopérative alimentaire créer itam ay zone zone zone économique ban place la Fouta war a jël ci loole bu ñu bëggee atteindre souveraineté alimentaire bi ñuy wax. non souveraineté alimentaire par rapport ak coopérative c'est belle initiative mooy li mu wax léegi gars dundoon nañ ko ci jamono yi jamono yi Mamadou Dia bi ñu créé les les les coopératives les de coopératives un peu dans les Niayes et tout ça bi ñuy def un peu di leen jàppale leen dans la commercialisation et tout ça mais loolu war nañ ko mën a initier waat dans la dans par exemple les il que ñu organiser avec les concernés les producteurs ñoom seen bopp c'est pas dressé dans les bureaux ici à Dakar loolu moo ci war a mën a et loolu aussi il a des questions préalables qu'il faut régler. parce que soo méfiez-vous mais justement parce que pour pas dire politicienne. non je comprends euh, cest pourquoi je dis Babacar. c'est wax ji dafa c'est une belle initiative c'est l'idéal. parce que soo dajalee coopérative da ngay dajale GIE yëpp union yëpp da leen di dajale dans un dans dans dans une coopérative cest à nga jàppale leen ci li production beeg commercialisation bi nga jàppale leen mais foofu aussi y a des préalables à régler parce que qu'est-ce qu'il faut faire avec l'élevage parce que da nga dajale élevage éleveur ak bay ak baykat éleveur ak baykat am na fu ñu mën a ànd am na fu ñu mënul ànd ça c' est des préalables aussi qu' il faut régler parce que bokkuñu ñoo bokk pro ñoo bokk li ñu dund mais bokkuñu objectif ñii par exemple dundal dundal la bëgg kii par exemple bay la bëgg ñooñu aussi dafa laaj waxtaan y' des gens qui s'y connaissent qui ont l' expérience de cette affaire là qu'il aille euh, à la à la à la source pour régler ko maintenant yaa ngi wax waxu découpage. Ben, depuis quelque temps, on a vu un par des, bon, que c'est pas intéressant c'est un faux débat xam nga naan par exemple Podor ak a été dañ leen sende dugal leen ci zone faible dugal leen zone zone waalo mais mais Georges la c'est un faux débat parce que ci programme Pastef loolu c'est un faux débat xam nga li am solo c'est que tous ces ministres et de Macky Sall qu'ils loolu de victimisation par rapport ak bërile woon woon ngeen de mais bërile wuñ mais malheureusement les problèmes mais justement moom laa lay wax quand tu as des structures

étant DG étant maire d'une commune tu peux pas accompagner tes producteurs par exemple foofu laay waxee responsabilité boobu noo ko mën a expliquer yow tu es responsable tu es autorité tu es maire munoo jàppale say baykat ils ont sont à des problèmes de financement donc en réalité tey su may su may def le bilan su may def su may juger un peu leur seen impact par ci population malheureusement c'est un impact négatif. par rapport à ça. Mmh. Sayet de mais mais Babacar da dem da dem Saint-Louis pour ñu am ab ñu xam Saint-Louis war di dem Saint-Louis souvent da dem direction générale SAED nga romb gis 4 x yi fa gaare gis oto yu bees yu fa nekk taxaw ci buntu buntu yu jotewul ak dara ak mbay mais jotewul ak dara ak mbay nga xool nga dugg ci mbay mi xool pauvreté bi fi am nga xool déphasage bi tu te poses la question mais loolu yëpp xam la ko indi tous les milliards yi ñuy séminaires parce que chaque fois financement ñëw lu ñu lay wax c' des séminaires c' des études mënuñu réaménager il faut qu'on fasse des études. séminaire séminaire di wax ci Fouta. mais justement loolu la fa am suba wala dem toog Saint-Louis daal toog ci bureau yi di def ay séminaire di def ay des cabinets de consultation c' ça le problème mais genre fait mal xam nga dañ koy wax nii mais ça fait mal. c'est une catastrophe li xew dans la vallée

on n'est plus dans le même bord politique loolu la ñu frère la xarit la grand la loolu la ñu seq man ak moom maintenant tey je peux dire que je suis pas dessus parce que bi may xeex pour mu nekk maire aujourd'hui il est maire mais je suis même pas dans son cabinet je suis même pas dans son mouvement politique mais il est maire mën nañ jàpp parce que nit aussi ay la yëwén ay la yëwén aussi nangul ko léegi-léeg même su dee benn jéego bu mu fa ko tey jàpp naa ne honnêtement dama koy wax et ça je prends Dieu à témoin dama koy wax tey aljuma la je prends Dieu à témoin vu des changes des choses yoo xam ne bougé na ça commence à bouger dans la commune de Podor la la tout un pour un bloc opératoire li fa amuloon un matériel neuf dama ko gis man du lu ñu ma wax du lu ñu ma nettali dama ko gis quand on te accompagne un peu la la la jeunesse quand on met un stade avec du gazon synthétique amu fa woon. c'est pas pour faire le bilan. da ngay ménager racine di euh, xarab ñeneen ña. te ñooñu oh, ñooñu parce que ña ngay wax ay DG port ak lu ni mel am na la nga xamante ne def nañ ko seen. dëkk am na centre ya nga xamante ne tabax nañ ko fa. non je te donne un exemple man je défie quiconque li ma gis laay wax yàlla xam na ko parce que kenn ci ñoom joxuma ma dund joxuma salaire kenn ci ñoom dundalu ma Georges je prends un témoin ici RFM la dama ne yaa ma bi ñuy wax waxu baykat dama ne la cuvette de aéré laaw tu es DG de port du du du port. tu dire que loolu dafa relever ci si ngay wax. mais am li mu def dëkk la non fa la jëm non a été inauguré en dama ne. moi je parle sur le plan agricole. et uh-huh. moom il relève d'un décret présidentiel. il est un responsable politique parce que dama jàpp ne li mu yor c' est parce que c' est c' à cause des Podorois c' est à cause de son militantisme lañ ko ko parce que il faut que ça soit clair ça un décret présidentiel ma mais dama ne sur le plan agricole su dee ay béykat. élu aussi par les populations maire de sa localité. mais justement élu et réélu. au même titre que Racine. non non non élu et réélu maintenant si on devait faire le bilan de sa gestion par rapport à sa commune comme ni nga wax léegi on peut faire le bilan de sa gestion parce que ku ci nekk. ay la yéwén am na loo def ci sa commune étant maire ça c'est toute de durant c'est toute l'étendue du territoire mais c'est Babacar qui m'a posé la question moo xam ne oui oui Lamine Ba on va terminer 30 euh, secondes moo ñu dese euh, leneen loo xam tam loolu ci yéen waa Podor la mooy euh, politique dafa fës trop foofa li ngeen di doole ak temps bi ngeen def ci politique dafa jéggi dayoo par rapport ak yeneen taxawaay yi jëm ci mën a suqali seen seen dëkk yi am déet. non mais justement c'est du tout politique à Podor. mais justement c'est c'est Matam. c'est des Fouta c'est par essence c'est des zones politiques. trop politique même c'est depuis le temps des Bokar Wele et tout ça yàgg na c'est du temps wu Senghor ça dafa am solo mais man li ñu intéressé mais comment faire pour appuyer et aider ces producteurs là. qu'est-ce qu'il faut faire pour ñu mën relever le plateau médical du département de Podor l'hôpital de Kaskas mais tey c'est un dispensaire de casse-casse qui a été transféré là-bas li ñu intéressé mooy comment faire pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi parce que immigration clandestine bi dafa leen sonal à travers la Mauritanie di dem Nicaragua cest mm. dire que c'est voilà ces questions là yoo xam ne ñun loolu moo ñu soxal loolu moo tax ñuy wax mais maintenant les cas individuels tout ça souvent ça nous intéresse Vous avez besoin de caution sur des marchés publics ou privés Adressez-vous à merci beaucoup Babacar Fall de Déthié Diop ak seen gan Lamine Ba ñu ngi leen di ñaanal euh, bonne journée ak euh, programme rajo Futur Média huit h jot na ci kanam incha allah dinañ ànd ak Souleymane Niang ci jàngat bi ak euh, projet bi maanaam régime bu bi ndax mën nañoo passé wu du FMI et puis de la Banque mondiale dinañ ci taxaw ci kanam tuuti suñu gan tey jilee mbay seen Diakhaté la moom mooy secrétaire général syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail. waxtaan bi boor 8h45 minutes lay doon léegi ñu sóobu ci xibaar yi ñu yaatal ko.